bi yàbbi na ko ci tefes bi journal bi joxoñ kàddu yi néew yi ci président yëkkati ca conseil des ministres ñaawlu itam li fa président premier ministre wala ministre de l'intérieur tegu tànk tribune Dakar Times ne booba lépp tiis yegg na ci deuil national moom la booba lépp yéene kaay ci xëtam gu njëkk ci xëtu laas ñu naan ñu néew yaa ngay gën bari gannaaw gaal ga suux ca mbuur libération tuddee ko le business de la mort yégal ñu ne Pape ñu gën moom moomaa doon yóbbu ñooñee ca bitim réew nangu na ci kanam takk der ne encaissé na fukki million yu teg yéenekaay bi ne mbuur teewul a ñu doon assemblée nationale ne nu ëllëg la ko président de la république di suul journal booba dellu si ci kàddu yi njiitu réew mi yëkkati démb ca conseil des ministres ne junju na ko fa ndax ba mu ne dafa bëgg a yokk doole pouvoir exécutif bi mu doon pouvoir boo xam ne dafay gàttandu yu baree bari yéenekaay bi ne mbiram yu mujj lay dund ndax ëllëg dara du tee njiitu réew mi tas ko yor yor bi naan tas assemblée nationale ëllëg lu mënta ñàkk la journal bi ne assemblée bi dafay tere dox réew mi fatt démocratie bi kon amul lu ci njiitu réew mi war a ne ci xalaatu président assemblée nationale Amadou Mame Diop bataaxal ba mu ko bind l'observateur ne lanu ca mën a jàpp mooy njiital assemblée nationale nee na ko awma ci objection waaye ma koy fàttali ba ñu jàpp ngir yi moo ci am bi ci ñaari fan képp desee l'observateur ne man li ma ci gën jaaxal mooy tekkaaral gi conseil des ministres def ci déclaration de politique générale boobu amul fenn fu nu ko tuddee te mu war a am gannaaw ëllëg yéenikaay bi bu dee boobale DPG day am nag fa nu ko gën xaar mooy ci emploi des jeunes xëyu ndaw ñi éducation santé pouvoir d'achat consommation bonne gouvernance du yorin sell ñi ñu dénkoon réew mi te jàpp ne seen yorin selloon ba wane ña ngay ñaawlu ni ñu tënkee ñenn ñi ci Sénégal te teguñu ko ci benn base bu légal vox populi ne restriction des libertés la ko organisation société civile yooyee tuddee yéenekaay bi ni toll nañ ci fukk ak ñett génne bataaxal ndax mënootee génn nit réew mi te amul fenn fu leer foo ko teg waral ca bés bi le jour kuréelu société civile booba di woote ñu sàmmonteeg état de droit la mu santaane ñu des ci boobale bi yéenekaay buy wax ci mbiram Cheikh Oumar Diagne mi journal bi gis ne pataas bu tàng jër la ci loxol Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye moom Sonko sax yéenekaay bi ne demoon na Touba ngir fay la làkk googa ca conseil des ministres démb it président de la république mel na ni ku weddi Cheikh Oumar Diagne ndax wax na ci kilifa diine yeeg taxawaayu am solo bi nu am ci réew mi ak ni nu leen war a wegee waaye it ni mu a taxawee moom njiitu réew mi ngir ñu sàmmal ku ne ngëm-ngëmam yéenekaay bi ne kàddu yu Cheikh Oumar Diagne yooye laal ngëm-ngëmu murid yeeg tijaan yi ba nu mer merloo nañu bari it ci Pastef ba tax ñuy sàkk ñu tekki ndombal tànkam moom ministre génne yar wi dóor ci kaw Amadou Ali ka ko wutu journal ba ne mooy ki ne woon vice recteur bu université bu Ndakaaru di Aminata Ñang Jeen docteur Ibrahima Sy ministre de la santé source ak yeneen yéene kaay nañu moom it coow topp na ko la ko waral di kàddu yëm yëkkati ne bu jotee CV day njëkk a xool ndax kooka Pastef la bokkam déet bés bi le jour ne ma ko waxee ca kanel waaye kàddoom yooye mujjee naa coow lu ko ëpp doole la jugee indi nay leeral a ba tey a ne loola de wuute na ci njiitu réew mi yéen kaay boobay fàttali ba jomaay di wax nanu def projet de loi buy tax ñépp yem ci xëy yi maanaam égalité des chances ci emploi public yi booba lépp journal jàpp ne kàddu yu ministre bi yëkkati kàddu yu général waaye itam kàddu yu garaaw a garaaw kàddu yu Cheikh Omar Diagne yi ñu bari jàppeelu garaaw a garaaw Dakar Times ne Ousmane Sonko moom dégagé na ci responsabilité am barki démb gontu na dem Touba waxtaan yu fay ca boobale mbir Walf Quotidien xëy ci mbiram équipe nationale bu Sénégal ne sunu gayndey tiitalatuñu kenn kenn nit ragalatu leen journal bi sëgg ci résultat yi ñu mujjee am di bi seen diggante ak Burkina Faso Burundi gis ca tànneef yu jara wax Aliou Cissé def waaye itam ñàkk xarañ gi ci attaque yi ak jafe-jafe yi ñu am ci coup de pied yi réew mi Quotidien ne match Sénégal Burundi ba sax daa mel ni ndax fédération burundaise loola yóbbu leen ca quart de finale ñi yem foofa tey ñun ñaanal leen kenn la jàmm dig daje ëllëg incha allah News